chers internautes du GFM ci émission quelques minutes sans tabou quelques minutes sans tabou tay nak ñuy li nga cycle menstruel Madame gis Vous bu ñu de gis dañuy ak li nga ak gynéco bi mu wax ñu cycle menstruel lu une hygiène menstruelle la ci sax dinañ am ci studio bi suñu benn gan nga Jali Badiane Jali Badiane comme ni ngeen ko xamé ci réseaux sociaux yi mom euh, activiste la féministe surtout Mom la dalal ngir mu waxtaanee ñom ñi tam dem ci les zones les plus reculées du Sénégal ci gox geeg goxaat jan lañ fay jax tam di jànkonteel ndax hygiène menstruelle bi amna ndax xalé communication bi jàll na ndax sensibilisation bi tamit amna. Bara balaa boobu dañuy dalal ki nga xamante modi suñu gynécologue bi mu wax ñu lan moy cycle menstruel muy docteur euh, Mbissane baax moy euh, manam règle de façon populaire ben moment ci cycle bi gi gis communément euh, ça dépend durée bi am les règles normales normal ça dure entre 3 à 8 jours euh, quantité de normalement nous mesurer ci quantité serviette bi par jour Nous nañ changer entre 3 trois 4 serviettes hygiéniques par jour yu fees euh, maintenant problème bi am souvent évaluation est day difficile parce que les gens ont am temps de changer hygiénique assez euh, régulièrement parce que pour être plus à l'aise ou pour des questions d'hygiène je dirais pour des questions de fausse hygiène le sang des règles n'est pas euh, n'est pas toxique le sang des règles n'est pas sale euh, le sang en général il est aseptique donc il amul benn infection que le sang bi en tant que tel da nga ça dépend de la quantité de sang bi vous avez ci journée Vous journée. Si par exemple yor serviette mu pouvez da nga changer effectivement bu fekkee yor serviette vous amul nécessité de changer que forcément. y a une infection y une une allergie surtout là koy classé parce que ça dépend ci serviette hygiénique que vous utilisez, ça dépend de la sensibilité peau femme que vous utiliser C'est pour ça que mhm. serviettes yi Mais nañu mais que les serviettes euh, arrangé arrangée, Il y une une option a euh, option prendre des tampons. Tempex am option tissu ngembu après nga faut utiliser waat amna option la coupe coupe vaginale mais euh, sans li en fait li neex ci règle ça veut dire que deretu règle du coaguler, du coller. bokul ak sang bo xamné euh, comme mm. nga dag na sang sans mën na des lu yag ci tissu bi mais sans règle par principe ni qui koy reconnaître sax ak yeneen de deret moy le sang des règles ne coagule pas chaque fois qu'une femme sax dit ay règles des cailloux elle a demal consulter parce que ce n'est pas normal le sang est fluide la quantité de sang du début des règles de fin des règles, dépasse 80 cc souvent jigéen ñi dañuy am tendance yaakaar ne dafa ëpp loolu parce que effectivement ça coule c'est fluide. pas normal de voir des règles de voir des cailloux en même temps. cycle menstruel mooy diggante ñaari règles. Mhm. moom la ñu wooyee cycle. dafa am da ngay souvent ñu laaj ce sa cycle ñaata fan. maanaam boo gisee règle ba bi ngay gisaat règle ñaata fan moo ci nekk. normalement tamit cycle bu gàttee ba gàtt maanaam diggante ñaari règles, c'est 24 jours. 24 jours bu guddee ba gudd warul dépasser 32 jours mën a dem ba 32 jours. ok alors cycle bi c'est divisé en deux parties par lu ñuy ovulation Madame, période la boo xam ne ci ngay génnee nen boo xam ne boo ci jël normalement mhm. alors ovulation bobo, ça arrive 14 jours plus ou moins un avant yeneen règles di ñëw mhm. euh, dafa am ay hormones ñuy sécrété qui font que 14 jours pile plus ou moins un jour règle dañuy ñëw mhm. c'est-à-dire que yaram bi dafay préparé wu pour recevoir nan boo rencontrer un spermatozoïde pour une fécondation. Mhm. donc day mel ni benn coussin qui formé un coussin un xam comme matelas pour recevoir nen bi. Mhm. Euh, on demee ba fin bi te amul fécondation coussin boobu dafay éclater donc des fissuré wu bi donc à la limite li que mën gis ci c'est quelques membranes c'est possible mais pas de cailloux. insister surtout que c'est important que famille mën am maîtrise xam seen cycle mensuel nak la tëddee parce que difficulté la jafe-jafe bu bëri la boo xam ne ñu koy rencontré suñu consultation de tous les jours euh, dañuy ñëw euh, jigéen bi ñëw ñu laaj ko euh, sa cycle ñaata fan la mu ne la ah gisoon naa règle le 25 bii passé le 26 laa gis bële le 9 soxla ñu yooyu li ñu soxla mooy diggante ñaari règle bi ñaata fan la nekk donc dee baax ñu sensibiliser leen si ñu koy compter cycle dañ koy compter premier jour des règles jusqu'à la veille des règles suivantes le jour bi nga gis règle le jour bu mujj balaa beneen règle bi ñëwaat. Mm. Euh, Débat aussi par rapport à ça nous mën xam kañ la ñuy ovuler alors souvent dans les laaj nit est-ce que xam nga sa ovulation dans le 14e jour. 5 euh, jours sax des fois ñu may 5 jours avant 5 jours après je dis ok d'accord le lañ peut-être économie familiale mais dañuy fàtte phrase bi leen jiitu dañ pour un cycle de 28 jours ovulation ça arrive le 14e jour mais cycle ne que 28 jours comme nous le ça varie des varier d'une personne à une autre et que donc il faut que ñu xam cycle pour xam quand la ovuler en plus je le dis mais y a des signes qui sont ne war na la les ovuler tu dois pouvoir sentir ni tu yaa ovuler. xam sa yaram xam sa yaram écouter son corps am nga ay pertes glaireuses yu génn nëqali à un moment donné oui sein yi c'est plus sensible de augmenter de volume gën a rafet yaram bi day gën a tàng et jamono jooju ngay gën a am envie sëy maanaam on a une augmentation de la libido am envie sëy bokkul ak mësa sëy ak mësul sëy de am envie sëy di nga ko même soo mësul sëy. d'accord maanaam di nga bon à supposer que sëy lu bànneex la lu neex la. Mhm. am envie am du plaisir. ok d'accord voilà donc yooyu yëpp c'est important c'est important pour ñu xam ndax cycle bi normal na ndax régulier na parce que un cycle normal sans être régulier Si vous c'est un cycle de 24 jours ok cycle de 28 jours cycle de 32 jours am na consulté consulter un cycle normal mm-hmm. normal non parce que entre 24 et 32 c'est normal. normal maintenant problème est, est ce que régulier na. régularité bi accepter un cycle de ëppante à un jour près par exemple vous nga 25 26 27 on va dire que c'est une moyenne de 26 jours mm-hmm. donc c'est bon surtout dans la recherche d'une procréation naturelle des fois nit yi dañuy naan la dama sëy du yàgg et tout mais uniquement parce que ñuy sëyee wala jamono bi ñuy sëyee mo adéquawul pour man effectivement indi une bonne fécondation déglu nañ gynéco bi té bala ñoo dalal suñu gan bi mu wax ñu jafé jafé yi gaay yi di rencontrer ci li nga xamante ne di gox yeeg goxaat ñu déglu ki nga xamante mom moom na gis mbax xamna luy mbax xamna sax hygiène bi mu wara andal waye jafé jafé yi ka mbax di tek manam wèr bu nekk dina perte ñett japp ñeenti fan ci euh, bés bi nga xamante ne pour mu ñëw liggéey sax wala bu ñëwee liggéey sax du nekk à l'aise ñu déglu témoignage boobu te ñëwaat. soxna si noo def. ñu ngi fii ñu ngi lay ziar. soxna si bienvenue euh, ñu lay jaajëfal ci li ñu accordé li nga xamante ne moo di témoignage bi ci seen émission sans tabou ñuy waxtaanee ak lii di euh, règle jàpp sax bu ñu nee règle règle douloureuse baa ngi ci hygiène menstruelle baa ngi ci. ñu doon la wax rek ndax bu fekkee mun nga ñu wax nooy dundee sa période règle très difficile parce que j'ai des règles douloureuses qui' ma coups depuis que j'ai commencé à règle règles règles, ça a toujours été comme ça euh, c'est vrai que dafay changer la forme Je ne sais pas si c'est man ou c'est général mais quand j'ai vu mes règles, c'était très difficile c'était très dur j'avais tout le temps envie de foutre genre yooyu donc c'était très difficile à l'époque gamu woon garab boo xamantene ne daawoon na douleur bi mais après ci la découvrir ibuprofène ma commencé di ko jël nag je suis même devenu accro su ma ko naanu dafay mel ni c'est un peu psychologique day melni ni du tane su dose bi jexé vite fait dama koy jënd fin du mois su may jënd sama effet effet de toilette forcément ibuprofène da ci bokk mais après ma soeur sama soeur médecin là, elle m'a recommandé elle m'a même interdit de de l'utiliser parce qu'il paraît que dafay dafay am dafay daf am effet secondaire daf aussi parce que tout excès est nuisible te man ni ma koy man personnellement je sais que c'est pas bon parce que je n'ai pas jël deux laay jël mën trois fois dans la journée ça fait six man personnellement je sais que ni ma koy jëlee baaxut. l'essentiel na la soulager. man daal voilà donc douleur bi daf ma daf dafay métti ba tout ce que je lu ma lenn rek laay gis moom mooy dem uti ibuprofène mais récemment temps yi sama benn xarit moom ma jaay benn mélange c'est sincèrement je sais pas <laughs> qu'est-ce qu'il y a là ay herbe la ay garab et tout ça donc su may waaj a gis sama règle li moom laay jël. deux à trois jours en avance herbe naturelle la waa gis naa ci sepp truc mm. affaire yooyu donc moom laay jël su ma jëlé jëlee sincèrement temps yi mom douleur bi nim mu atrocé wàññi na j'arrive à à à gérer affaire avec. légui euh bu ñu waxé ci lolu ñëw ci hygiène menstruelle bi parce que xam nañ ne indisposé dafa and ak chat ñun jigéen ñi né nañ sax dañu dañu am xawma ma ñu dañ ci dañu mañak mm-hmm. parce que ñenn ñi foo foo toll foog nga def rechange alors que est-ce que xam nga ne loolu gynéco bi sax recommandé wu ko. bon man personnellement j'ai horreur de voir du sang même sama traite bu ma daggee affaire j'ai horreur de ça donc il faut aussi savoir que euh, là donc quand on était petite bi ñuy commencer a commencé am et tout ça bien vrai qu'on pouvait acheter avant que le bleu bi freedom moo mais vu que nous tuuti c'était faire rëyoon ci man donc sama yaay dañu dit wax dañu jëndal morceau yu yu donc mom lañ daan euh, jën dagaté ko dag ko won nañu waroon nañ ci am ay 13 yoyu noonu. mais est-ce que xam nga sax médecin gynéco yi sax mom la ñuy recommandé nga jël ko moy serviette euh, lavable yi nee nañ mo ëpp sécurité nga fot ko ba mu set weer ko ci naaj ba mu wow nga repasser ko bobu dara gënu ko. si si parce que ñun suñu mag yu njëkk yi sama yaay ça expliqué que ni ñoom noonu lañ daan def donc même suñu mag yi ñu fa fekk non lañ daan def parce que freedom bi c'était pas donné à tout le monde ñëpp mënuñ ko woon jënd mais man sincèrement man team bi fóot ko le fait que boko dougalé rek nga gis deret ma man c'est ça que je pouvais pas supporter moo très tôt euh, ma commencé di jënd euh, fredon bi ak euh, serviette yi nii su ma demee su ma waree j'enlève comme ça je fais vite fait dougal ko sama sœur va du ma ko xool sama sœur bi néna ma dé koy même avec serviette yi dee koy raxas dee koy fóot parce que nga kay sànni noonu baaxul mais j'arrive pas je sais pas j'arrive pas donc dama koy jël remorse gaaw rek kii te su ma demee quand je vais su ma gisee ne saa commence à être abondant rek je man aw ma je sais mënuma la wax combien de fois laay changé ci jour parce que ça dépend ci il flux a une règle douloureuse yi dem là moi mais j'ai entendu parler que jëkkër la koy dindi donc vivement ma gën ci célibataire juste pour ça. <laughs> merci beaucoup. soxna ci no def. maa ngi fi. soxna ci dañu bëggoon rek nga waxal ñu sa témoignage loo ñu mën a waxal ci mbirum règle douloureuse parce que gis naa ni sa période bu jotee yaa ngi ñu koy xamal ni que ni day nekk période bu metti ci yow naka nga koy dundee. métit bu tar bu doy waar euh, du ma mën a liggéey du ma mën a def dara bërëngu di dugg ci rondal lal lu ne parce que métit bi mënoo ko sanat day jàpp ndigg bi jàpp tànk yi jàpp partie intime yi biir bi lépp métti ngay am ay nausées di wëccu parfois xam nga euh, affaire bu doy waar lii les piqûres moo lay soulager wala yenn garab yi Euh, le 28 bi passé une journée internationale euh, hygiène menstruelle parce que gis nañ ni que ni euh, gis règle dafa hygiène yow par exemple ñaata ñaata serviette ngay utiliser wala utilisées, nekkee bureau naka ngay def ba nek à l'aise da ngay yóbbaale ce change wala bon man chance bi ma am mooy aw ma flux bu bëri peut-être loolu bokk na si liy métti sama biir man liy génn du bëri am na ñoo xamante ne xëy na comme robinet man premier jour yi mën na génn tuuti peut-être deuxième jour bi mooy xaw a kii donc su may xëy ñëw bureau damay indaale benn sama sac ça dépend après euh, su ma toogee ba si yàgg mën naa dem toilette yi changer mais changer au bureau parfois nga change nga sànni ko ci toile ci da ngay doo nekk à l'aise quoi tu préfères pas nga mais sa kër doo ko donc mais man au plus naa changé wu trois fois par jour hmm, xanaa rek euh, di wax ne dañ ne woon bo marié wu day dañ mais j'ai constaté que loolu amul ci noonee la ñuy ñëw dalal ki nga xamante ne moo di Djali Badiane Djali Badiane nag di ab journaliste euh, nekk activiste nekk féministe bouré et te di ko revendiquer nag

wa depuis quelques années le 28 mai bu at bu nek dañuy euh, taxaw setlu li jëmale ci gis bax ak bép set bu ci wara and ak aussi ben, bép ak ak yelleef bu ci wara bok mhm. parce que dañu setlu ne jigéen yu bari surtout Sénégal en tout cas ak en Afrique jigéen yu bari amuñu euh, moyen wu soit ñu am protection hygiénique wala bok ñu am sax ay jumtukaay yu bax mhm. muy ndox muy toilette yu yu set pour mën période bobu non bi nga xamanteni da fay revenir ci sen cycle weer bu nek mun nek période bu ñuy mëna dundu ak xel mu dal ak sérénité lool motax journée bobu ñukay koy té fi ci Sénégal en fait dafa nek ci contexte bu difficile bo xamanteni dañuy xeex déjà ak ak yelleefu jigéen ñi ak xalé yu ndaw yi di lutter aussi contre euh, déperdition scolaire manam jigéen ñi gëna tok ci ci école yi té dañu rendre compte que ni école yu bari soit amuñu toilette mhm. soit amuñu ndox wala amuñu toilette yu adapté mhm mais euh, xalé yi sax ak euh, xalé en général sax dañ protection li ñuy wax service hygiénique ak benen bépp protection hygiénique accessible cher déjà yi nga qualité bi mun nañ ko discuter euh, te loolu ci yaramu aussi ay performance ci école

Euh, ci ci ci ci weer bi bo xam duñ dem jàngi xam nga cours yu raté bo nekkee classe d'examen mën na jouer ci say performance scolaire bu dee jigéen ñi liggéey aussi euh, rendre nañ compte que ni ñu ci bari ñàkk jumtukaay ak ñàkk aussi ay infrastructures yoo xamante ni ni mën na tax ñu permettre ñu am une bonne gestion gestion de l'hygiène menstruelle mën na leen perteloo aussi euh, xaalis bu bari surtout jigéen ñi nekk dans le secteur informel. mais même dans les entreprises hein, da ngay gis ñoo xamante ne dañuy ñëw liggéey ci mais weer bi période boobu bu jotee moom pour nous liguer normalement soit dinañ perdre deux jours le trois jours de ñu ñëw parce que non seulement dañ ci and ak biir buy metti ci gën a euh, euh, di enc di di gàllankoor jigen ñi ñàkk kay ñak protection hygiénique mm-hmm. ñak endroit bu set bo mëna a toilette mëna mëna changer wu parce que mënu yendu journée ben entière ak ben protection dafa metti ci jigéen ñu bari donc de jigéen ñu bari dañuy préférer toog seen kër ba période boobu jàll ñu doog reprendre seen activité bu école la même chose te dafay jouer ci performance ñoo ngi pour que xale yu jigéen yi mën a trop ci école mhm. dem ba am bac dem seen formation et tout te loolu dafay jouer ci performance scolaire jouer aussi économiquement aussi mhm. si pouvoir d'achat wu jigéen ñi donc ñuy militer pour que protection hygiénique yooyu doonu Sénégal ni ñu def ba yeneen service yu lié à la santé de la reproduction di am ay services gratuits ñu fexe aussi bu protection hygiénique aussi aussi nek quelque chose de gratuit disponible mhm. pourquoi pas parce que gis nañ dëkk yoo xamante ne même ci abri bus yi ah, fii bus yi di taxaw dañuy def benn box bu ndaw def fa protection hygiénique gratuite nga xamante ni fu mu la fekk euh, di nga mën a am toilette mën am protection boo mën utiliser donc dañuy xeex vraiment pour que ñu militer pour que plaidoyer boobu jàll auprès des des autorités euh, sénégalaises pour que ñu mën ko soit bu ñu mënoon am gratuité aussi mais ñu subventionné ko ba mu ba mu yam euh, ci ci ci niveau de vie parce que xam nañ ni surtout dans certaines zones reculées du Sénégal pouvoir d'achat bi demeewul noonu. plaidoyer boobu nag war na jall parce que yeen say dina la fekk ci conditions yo xamante pour nga am rechange wala mu bett la sax. euh day da ngay day day jafé pour nga am lo xamante mom ngay suturloo ci noné yeen ñi nga xamante da ngeen tam dem ci les zones les plus reculées du Sénégal parce que am na yenn village yo xamante xalé yi mën nañ né sax xamuñu luy lolu est-ce que mën nga ñu am loñu ci xamal euh parce que euh, ñun ñi nekk souvent ci réew ci dëkku taax yi dañuy foog ni euh, waaw connaissance bi dafa universelle xam-xam bi dafa universelle euh, boo génnee tuuti Dakar ci ngay rendre compte que ni travail de sensibilisation bi dafa des parce que xale bu jigéen bi xamul lan mooy cycle menstruel xamul lan mooy gis baax mënoo ko sensibiliser ci hygiène menstruelle donc dañuy liggéey trop pour que xale yi déjà xam seen yaram xam seen cycle menstruel xam lan mooy les les règles et rôle bi muy jouer ci seen vie en tant que femme euh, oh, beneen chose bi dañu rendre compte que ni protection hygiénique yi ñuy jënd utiliser ko après sànniwaat ko mooy yi nga xamante ni c'est juste à utilisation unique euh, dafa am un impact bu muy am financièrement am un impact bu muy am sur l'environnement donc contexte yooyu yëpp tax na dañ leen di jàngal ñoom xale yi ñu mën a defaral elle-même seen ay propres serviette hygiéniques fait en tissu lavable yu ñu mën a réutiliser pendant au moins une année donc c'est très important pour que jigen bu nek ci zone zones noonu soo euh, défé un peu le calcul rek serviettes yoy dafa rentable de trop pour les ni déjà mën nañ ko défaral sen bop avec des tissus avec des matériaux yo xamante accessible na ba di permettre dans la longévité nous mën ko garder dans nos éclosions de chaque mois chaque mois donc dafa am importance et lolu ONG yu bari organisation yu bari ñu commencent ci commencé liggéey lu am solo euh, dans euh, la fabrication des serviettes hygiéniques réutilisables mo gëna économiquement mais mo gëna aussi pour suñu planète. Mhm. comme nous ko waxé rek mo gëna économiquement mais sensibilisation bi comme nous ko waxé xam nga a ngi def li ngeen mais dafa est-ce que dessoul parce que une zone yek yenn yenn yenn yenn ki par exemple mën nañ en télé wala mën nañ déglu radio mais zone comme par exemple boo demee sama Tamba Tamba Kunda y zone zones qui pour télé bi exifa, pour radio, bi problème là, naka ngeen di dëkkoo xam nga li ñuy wax euh, règle ak gis baax ak lépp lu tourner autour de la sexualité dafa nek sujet tabou au Sénégal mm-hmm. motax tax seen émission bi sans tabou ça ça dafa dafa baax ñu si waxtaanee sujet yi ni il faut que ñu dindi tabou bobu non déjà bi am mm-hmm. parce que culturellement dañu yar euh, dañu yar si le fait que soit gis baax dafa salté wala impureté dañu wara faire comprendre euh, ay xalé yi di ñew surtout jigéen ñi ak góor ñi ñëpp que mm-hmm. lu naturel la si si si cycle jigéen bu ko am te dafay prouver dans beaucoup d'autres communautés ou ou peuples dafay prouver que ni jigen nga que mat nga am donc ça doit plus être un sujet tabou tek de côté duñ ci en famille duñu expliquer allez c'est quoi leur cycle menstruel lan moy règle et tout donc communication bi mais sensibilisation bi mo il faut que mu accès dans les écoles mm-hmm. parce que si cercle familiaux yi souvent il faut xam yaay dina dina dina dina expliquer doomam exactement lan la mm-hmm. euh, euh, am ci am ci vraiment ouverture donc il faut nous ñu gën a travailler la sensibilisation sur le terrain pas seulement télé ak radio, parce que comme nous nga ko waxee euh, da ngay dem si zone dans le Kédougou nga dem Salamata Sène Saraya tu sors de 5, da ngay dox kilomètres à à côté de Saraya da ngay perdre réseau carrément donc dootoo jàppati une radio ou bien dootoo amati télé donc c'est important que sensibilisation nous ñu accès ko ci service de santé parce que ñun ñëppay dem hôpital ou ci mm. structure de santé nous avons une sensibilisation foofu non mais nous descendre sur le terrain sens waa relais communautaire ba sensibiliser les les ñi dañuy toujours ñun suñu ay politique de sensibilisation ak de communication pour les góor parce que góor ñi dañ ci am importance nous bu ñu comprendre ñoy mëna a soxna yi ci période yoyu noonu comprendre qu'est-ce que c'est la crise hormones yi lan lay jur et que ñu ko jappé juste affaire bu salté bo xam dañ koy jël sanni kenn du ci wax dañ koy tëj ben place. ci tabou bobu sax lay wax parce que man je me rappelle de yenn sa yenn ki bo gissé mbax parce que yaay yi ñoo wara tamit jël porter lolu nga xamante modi sensibilisation bopp day wax ak xalé jigéen yi di wax ak seeni i doom parce que auparavant da ngay gis ni bo gissé mbax bo ñëwé wax ko sa yaay wala wax ko sa maam dala naan ah da ngay moytu légui mom moy woné que légui bo boo jegee rek daal di biir donc loolu tamit war nañ ci bàyyi xel baax di gën wax ak parce que dafa beaucoup ci éducation pour que nous puissions éviter les grossesses précoces que nous tiital ñuy tiital xale yu jigéen yi euh, loolu ay leçons la nous nous famille yi euh, nga xam ne un peu foncièrement traditionnaliste c'était juste pour euh, tiital les yu pour que nous faire comprendre que ni rentré nañ maintenant dans la cour des grandes parce que les nekk nañ ay jigéen yoo xam ne mën nañ une activité sexuelle mais loolu il faut que nous tendre à def à déconstruire information boobu euh que au lieu que muy nek affaire buy titelaté wala affaire bo xamanteni ni dalay teunk ben ben instant mais ñu expliquer que ni cycle naturel lu jigen la xalé yu jigen buñ ko comprendre ci lañuy gëna muytu sen bop ci ci lañuy gëna prendre soin d'elle parce que hygiène té comme que gynécologue bi nim la ko waxé dafa am ay impact yu muy am même sur la fertilité mm donc dañ ci parce que amna jigen yu bari yo xamanteni xalé yu bari ci ñak protection mhm. ñak hygiène menstruelle yo yo ne yo jot de len ay ay fièvre ay infection mhm muy urinaire muy muy muy muy vaginal yo xamanteni après da leen di jural problème yu bari ci sen santé ba si am doom en fait donc war nañu gëna sensibiliser côté boobu noonu euh, que ce soit le personnel de santé que ce soit dans nos familles même yaay jël rôle bobu noonu mais ñu faire participer aussi papa yi góor ñi gën a comprendre euh, lan moy cycle menstruel ba xalé bu jigen bu amé règle kenn du ber kenn du euh, sonal té dina mëna jangi dina mëna a dina mëna jangi jàngi dina mëna a Jali bu féké amul leneen lo ci yok di leen remercier conseiller et euh, di wax que xalé yu jigéen yi surtout ak femmes en général nañu gën a farlu ci hygiène menstruelle euh jigéen lu ko gàllankoor dafa dafa gaaw té war nañuy mëna a sentir à l'aise 30 jours sur 30 euh, sans pour autant mu am ay période yoo xamante ni dañuy am suñu liggéeyukaay et surtout ñaax ñi patron patron yi yor ay entreprise il faut que nous am dans nos structures dans nos édifices publics des des des ñu intégrer si le genre muy am toilettes pour jigéen toilettes pour góor pour permettre jigéen ñi di gën a am possibilité am hygiène am hygiène hygiène dafa baax ci nit té cycle menstruel wax hygiène nga am hygiène menstruelle ñu lañ koy waxé hygiène menstruelle. bu am solo parce que dafa am solo ci jigen ndax jigen diko encore dafa bëri y moy suñu spécialiste maison bi tay xamlé muy Jali Badiane. Des activistes comme ni ko waxee nekkit li nga féministe <laughs> <laughs> chers internautes lii lañ leen indi émission quelques minutes sans tabou On doon waxtaanee ak li nga cycle menstruel de manière générale dit ngeen gynécologue bi li wax dégg ki nga wax que invité ak témoignage yi ngeen dégg ci biir émission bi di leen jox rendez-vous très prochainement ci seen beneen numéro quelques minutes sans tabou di leen wax d'ici là l'information continue sur www.igfm.sn